Mais depuis que le pouvoir politique s'est amusé à instrumentaliser la DIC, la DIC a été métamorphosée de la division des investigations criminelles à la division des illusions et des confusions. Vous allez aller amener des dossiers à la DIC. Vous allez être totalement confus. Vous allez vous-même vous retrouver à chercher qu'est-ce que vous faites la DIC. Vous prenez des documents, vous prenez le DIC. waa DIC su paree enquête document kenn nekk lu procureur waaw procureur moom est-ce que ci salle bi fii am na kenn fii wala ci réew mi est-ce que am na kenn ku fi xalaat benn laajte est-ce que am na fi kenn ku fi xalaat que le procureur il est indépendant si quelqu'un croit honnêtement que le procureur est indépendant dañ dem DIC dem joxe suñu ay mais man parce que télémédias xam ngeen wolof jaay nee na pour nga ko indee sa maam. parce que foo séeréer lu dul def. jigéen dama ne su ma maasee saa yu moom moom moom moom Serigne Bassirou Gueye toog na ci procès Khalifa Sall juge Malick Lamar di àtte mu ne fii ci Sall bokk naa fii réunion ak ay nit ñu toog di complot Khalifa Sall moom moo ko wax Serigne Bassirou Gueye man nag ngeen foog ne ni ñu mel noonu man. dina ay waxam jarul sax ma ci mere suma loxo bépp Sénégal bu bëgg Sénégalais yi xam lu xew ci lii na jël lu mu am nañu ko indil ñu ne kuñ koy jëlal parce que adduna bi moo soppeeku fii adduna bi tey lu mu neex waay def dinaa leen jox benn exemple rek bëgguma ci sori parce que mënuma wax lépp élection États-Unis dafa amoon benn waay bu ñuy woowee Donald Trump muy wut maison blanche ànd ci ak benn jigéen bu ñu woowee Hillary Clinton xam ngeen Hillary Clinton boobu lan la woon États-Unis moo nekkoon première dame nekkoon na fa sénateur nekkoon na fa ministre d'État xam ngeen ñooñu suñu demee ba mën a dugg seen boîte email di xool lépp lu ñuy def du du ñu nekk fii Sénégal ay ñoom Macky Sall ñu doom ñuy dëggaay loolu la fu mu nekk nii lan leer ne ni que tubaab bi tey lañ gën ay këyit lu ñu ay email ay lépp message lépp tubaab yor nañu te suñ ci eggee dinañ leen lan lañ ci def ci lu bon Aliou Sall def leen dal Aliou Sall fekkee moo ko ci boole ak sot fekkee ak sot moo ko ci boole du leneen ndeyu mbind moom la ñu faloon lan ci yaakaar ci wootee la patrie avant le parti ci woote dinaa def mandat de cinq ans au lieu de sept ans ci woote cinq cent mille emplois ci woote ci woote ndeysaan ba ci woote wax waxeet wante nag comme yàlla mooy karim yàlla dina àtte dina àtte ala kulli yàlla yàlla dina àtte.